zikkar su ànd ak xaal borom baatu wurus yi zikkar su neex ba jéggi dayo ci waajal gàmmuk Tayba Ñaseen 2022 ay waay rajo alfayda ak alfayda tv fas yéene bégal mboolem ñuy dund zikkar tudd yàlla alxaaji libaas mbay borom waajal gàmmuk Tayba Ñaseen alxaaji libaas mbay ca animation ba ca dalal ba ca xarañ ga ca pasteef ga alxaaji libaas mbay fas yéene dalal mboolem kuy zikkarkat te aju ci xadara bu Medina bàyyi li ko tàmbalee àllarba ñaari fan ci weeru février bu 17h jotee jàpp 19h noonu la koy continuer bët bu yàlla sàkk ba dimanche fukki fan ak ñett ci weeru février mboolam kuy si zikarkat am nga fi place mboolam kuy tudd yàlla fañ la fiy dalal ku nekk ak kala neex ku nekk ak lala saf yéen ñi si zikaru Medina bàyyi saf yéen ñi si zikaru Medina bàyyi di daaneel xana taalibe Baye ñesi bu leen ko kenn nettali en direct ci rajo Alfayda ak Alfayda TV lundi 7 février 2022 bu 17h jotee jàpp 19 heures ñu dalal Cheikh Ibrahima Thiam bu Cheikh Ibrahima Ndaw ak équipe bu muy àndal alxaaji libaas mbay yóbbu na leen ca gàmmu ga te gàmmu gi yegg seegut lépp ngir bëggal leen rajo alfayda télévision alfayda mooy ñaar yi ngeen doon xaar ngir matal seen yaakaar ci dund si kar su neex ay waajal gàmmu tey ba ña seen du fenn fii la alfayda alxaaji libaas mbay kenn du yéen